أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله mbokki ñëwaat nañ ci seen tafsirul Qur'an ñu leen koy Eh, andil fii ci tele bu am solo bi di Muslih TV di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi yépp yal yàlla sàmm leen barkeel seen dund tey incha allah ñu war a tàmbalee suuratul fatiha suuratul fatiha moom lañuy tijjee jotaay bi nga xam ne moom mooy eh, tafsirul quran bi ñu leen di àndil suuratul fatiha al fatihatu moom mooy li li ñu tijji wala li nga xam ne day ñëw di tijji lépp lu tëj woon moo tax ñuy tijjee jotaay bi ak saar bu am solo bu rëy boobu wa laha thalaasatu asmain maarufa am na ñetti tur yoo xam ne yu siiw la mooy fatihatul kitaab wala ummul kitaab wala sab'ul mathani ñetti tur yooyu lañ koy koy tuddee Euh, lu tax ñu tuddee ko euh, fatihatul kitab li anna allaha bi iftataha al quran parce que borom subhanahu taala ci la tijjee al quran ñu tuddee ko tamit ummul quran wala ummul kitab ñaar yooyu benn tur li annaha aslul quran ndax moom mooy cosaani al te buñ ne al ummu mooy baatu ummu mi ngi tekki yaay te yay lépp di doom rek ci moom nga jóge moo tax ñu ne ñu tuddee saar bi ummul quraan ndeyu alquraan ndax lépp ci moom la jóge euh, ñu tuddee ko tamit comme ni ñuy waxee ummul qura bu ñu waxee ummul qura ndayu dëkk yi ñu ngi ci jublu màkka ndax moom mooy dëkk bi njëkk a teg ci kaw suuf inna awwala baytin wudia linnaas comme ni ko alquraan waxee kër gi njëkk a tegal nit ñi ci kaw suuf yàlla nee na mooy màkka ñi ngi koy woowee tamit euh, sab'ul masaani borom xam-xam yi nee nañ parce que euh, aaya yi juróom-ñaar la moo tax ñu tuddee ko sab sab'ul masaani euh, am na ñu ne li muy baamtu ci julli moom moo tax tamit ñu tuddee ko sab'ul masaani kon loolu yépp ay wax la yoo xamante ni ñëw na ci fatihatul kitab waaye di ay waxi boromi xam-xam yoo xamante ni amul contradiction seen biir ci ne faatixatul kitaab moom mooy saar bi nga xam ne moo tijji alquran euh, saar bi di juróom ñaari aaya saaru fatiha juróom ñaari aaya la sept verset la am saar bi makkiya la wax nañ sànq lan mooy makkiya ak madaniya mooy li wàcc makka ak li wàcc madani madina li wàcc màkka moom la tuddee makkiya li wàcc madina ñu di ko woowee madaniya euh, lenn rekk walla kenn ci boroom xam-xam yi moom moo wax ne saar bi madina la wàcc wa ala kulli xaalin borom xam-xam yi nee nan dafa wàcc ñaari yoon moom fatihatul euh, moom suuratul fatiha nee nan dafa njëkk a wàcc wàcc màkka mu wàccaat wàcc madina moo tax mu am ñaari wax yooyu borom bi subhaanahu wa ti tijjee ko ci aadaatul xafdi wala xarfu jarrin ñaari baat yépp dañ koy wax ci ñi nga xam ne ñooy jàng grammaire arabe muy baatu bi baatu bi dañ naan baaun fil i'raab xarfu jarrin wala xarfu xafdin borom subhaanahu wa taala ba muy wax bismillah ñu ne dafa am lu mu dagg foofu maanaam bismillah ibtidaa yi wala nga ni ibtada'tu bismillah maa ngi tàmbalee ci turu borom bi subhanahu wa taala kon saar wi bépp jullit bi nga xamante ne nangu nañ ak njulliteem te li koy wane mooy julli bi muy julli chaque jour dafay tari saar wi moo tax yonent bi alayhi salaam mu ne képp ku julli te tari woo faatiha amuloo julli sa julli googu baaxut bu la neexee nga tari kaamil bi ba mu jeex bu amul fatiha julli boobu baaxul kon mooy saar wi nga xamante ni dinañ ko tari lu baree baree bari ci journée bi en tant que ab jullit boo xamante ni mi ngi topp borom subhanahu taala ci di ko jaam borom subhanahu taala mu ne bismillah ñoo ngi tàmbalee ci turu borom bi bi nga xam ne moo tudd Allah moom mooy benn tur boo xamante ni amul keneen ku ko tudd moom képp moom moo ko tudd ba pare amul musanna ci arab amul jam'u arab baat bu ñëw dina ko wutal musanna mooy ñaaram walla mu wutal ko jam'u wutal ko pluriel mais turu allah amu ko turu allah moom benn tur la rek boo xam ne kenn rek moom moo ko tudd te mooy borom bi subhaanahu wa taala moom allah boo dindee alif bi baat bi du yàqu dafay des lilla lillaahi ba tey chance dafay des nga dindi beneen laam bi mu des lahu ba tey maanaa bi day des lahu maa fi samawati wa maa fi ard nga dindi laam bi mu des haa bi muy huwa moom mi nga xam ne huwa allahul ahad moom yàlla kenn la boroom son taala nag mu ne bismillah ñi ngi tàmbalee ci turu borom bi subhanahu wa taala arrahman mooy ki fees dell ak yërmande di ko yëram jaamam yi ci suuf ak jaamam yi ci kaw arrahim di yërmande gi gën a feesati rahman ñaari baat yépp ra yërmande lay tekki waaye dañoo ëppante euh, ci ci ci degré dañoo ëppante dañoo rawante mooy ja yërmande gi nga xam ne mi ngi koy yërëm ñi yàlla rekk ci àdduna ak ci àllaaxira donte firikat yi dañuy wax rahim pour pour àllaaxira kese la waaye rahim ci texte yu wér pour àdduna la ak pour àllaaxira nee nan borom subhaanahu wa am na téeméeri yërmande téeméeri yërmande boobu benn rek la ci wàccee ci kaw suuf ci la jën di yërëmee doomam ci biir géej bi ci la bàyyi may di yërëmantee ci la yaay di yërëmee doomam ci la nit ñi di yërëmantee mboolem yërmande boo gis ci kaw suuf benn yërmande boobu lañ seddoo mu des quatre-vingt-dix-neuf yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala ko dencal jaamam yi ëllëg yowmal qiyaam kon nit lu mu sàggan sàggan uruta sàggan ba du bokk ci quatre-vingt-dix-neuf yërmande yooyu nee nan ci xissa bu ñuy nettali boo xam ne am na solo lool waa ji yàlla dana ko demal dugg safara mu ne ko dugguma yàlla ci maandoom digalul nit ñi pour ñu dóor ko digalul malaaka yi pour ñu mbugal ko ci bañ googu mu bañ waaye daf ko laaj lu tax nga bañ jaam bi ne ko damay xaar rahim su rahim jeexee te awma ci ma door a dugg safara rahim mooy sa tur boobu nga wax ne yaay yërëme bis bu jeexee te awma ci ma dugg safara yàlla ne ko demal nga duggi aljanna ndax rahim du jeex kon ñu xam ne rahim ak rahman mooy yër mànde yi nga xam ne yàlla moo koy wàccee ci jaamam yi yàlla na ñu ci yàlla boole yàlla na yàlla yërëm ñu ci àdduna yàlla na ñu yërëm ci àllaaxira alhamdu cant lillah ñeel na yàlla kon bu ñuy sant dañuy sant yàlla loolu nag tekkiwul ne duñ sant mbindéef dinañ sant ab nit ci mbaax gim ñu defal ci yërmande gim ñu yërëm ci njekk gim ñu defal ñu sant ko ci loolu mooy ashukru waaye alhamdu ak ashukru ñaar yépp sant lay tekki waaye am na wutee sukru mën nañ ko defal mbindeef waaye xamdu moom yàlla lañ koy defal ndax xéewal yi muy wàccee ci ñun muy xéewalu noyyi xéewalu wér xéewalu jóg di mën a dox suñuy soxla ak di wax ak di dégg kooku moom rekk moom moo ñu ko mën a defal moom mi nga xam ne mooy rahmaan mooy rahim borom bi mu ne cant ñeel na boroom boobu nga xam ne moom moo ñuy yërëm ci àdduna waaye moo ñuy yërëm ci àllaaxira alhamdulillah sant ñeel na yàlla rabbal alamin aw rabbil alamin borom mbindeef yi alam nag mooy tekki mboolem lu yàlla sàkk nit ñi seen alam lañu nekk jinne yi seen alam lañu nekk rabu àll yi seen alam lañu nekk ak yeneen mbindeef yi nga xam ne yàlla bind na leen te xamuñu xamuñu ko ndax yàlla nee na bind naa lu ngeen xamut yooyu yépp ay alam la soo leen boolee mu tudd aalamin euh, mooy ñoom ñépp borom bi subhaanahu wa taala moom moo tax ci moom la ñuy jógee te ci moom la ñuy dellu borom subhaanahu mu répété waat yërmande gi mooy arrahman mooy yërëm jaamam yi ci àdduna arrahim mooy yërëm ñi ko gëm ci àdduna ak ci àllaaxira malik yawmi mooy buuru bisu pénc bisu pénc ñéppay sëggal seeni loos kenn du ñemee yëngal tànk ndax tar bi bis bi tar yàlla nee na man maay malik bi su boobaa am na ñuy jàng maaliki am na ñuy jàng maliki xëcc miim bi ak ñàkk ko xëcc yooyu yépp ci façon jànginu alquran la ndax alquran am na juróom-ñaari façon njàngin am ñu ci dolli yeneen ñett muy fukki njàngin kon bari na ay façon yi ñu koy jànge ñu nag fii li fi gën a siiw mooy riwaayatu wars ak xafs ci Sénégal moo tax ñuy jàng maliki yawmi diin wala maliki yawmi diin boo ci dégg wér na mooy buur bi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne mooy buuru yowmal qiyaam bu ñépp taxawee moom rekk moo naan limanil mulkul yowm kan moo am nguur tey ñu amoon nguur ñépp fi ñu tëdd duñ sañ a wax fi ñu tëdd duñ sañ a yëngatu fi ñu tëdd kenn du nangoo wax ngir tiitaayu bis bi ngir ragalu bis bi ngir bis bi rëy gi mu rëy yàlla nee na man maay buuru bis boobu man maa fay dogal maa fay wax nit ñi di def man maay santaane man képp maa fay wax ñépp dañuy déglu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ñun ñépp dañuy taxaw kenn du sol yére comme ni ñu gane woon àdduna noonu la ñuy taxawee sunu yaa ay Aïcha di jigéen joo xam ne loolu jaaxal ko lool ndax xam ne ni jigéen warul sax sàggan ba ñu koy xool ay cëram rawatina ñuy xool yaramam yowmal qiyaam mu ne waaw yonent bi loolu naka la mën a nekkee góor ak jigéen taxaw ñu def yaramu neen yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko bis bi dina métti métti goo xam ne doo xam ne sax ki taxaw sa kanam sol na yére walla solul yére mu ne nit ñi bu ñuy dox ku nekk dafay ragal def benn wi balaa muy jàpp ne dañ koy jël tëmbal ko biir safara moo tax tànk yi sax bu ñuy dox doo leen dégg yàlla nag mu ne bis boobu tar bi muy tar moom mooy malik yawmi diin moom mooy buur bi moom bis boobu moo fay joxe ndigal moom moo fay dugalaate moo fay xettaliwaate moom moo fay yërëmaate kon iyaaka yow dong dong dong naabudu la ñu jaamu su fekkoon dafa wax naabudu iyaaka dafa jiital naabudu doora indi iyaaka mooy yàlla dama lay jaamu ba pare boole ci leneen waaye jiital bi mu jiital iyaaka loolu dafay tekk tawkiit ci langu arab mooy yow képp yow kese yow dong naabudu la ñuy jaam wa iyaaka yow dong yow kepp yow kese nastain la ñuy sàkkoo dimbal la ñuy sàkku ku ñu xettali la ñu ku ñu mën a dimbali ci situation yi ñu nekk kon loolu borom subhaanahu wa taala fii mi ngi wane ni jaam bi mi ngi wax borom bi li nga xam ne moom moo ko moom àqu yàlla ci nit ñi mooy ñu jaamu ko moom kepp àqu yàlla ci nit ñi mooy bu ñuy sàkkoo ndimbal ñu sàkku ko ci moom kepp ndax moom rekk moo ko mën akku yàlla ci nit ñi mooy ñu jaamu ko bañ ko bokkaale borom subhaanahu taala nag mu ne jaam bi comme ñëw nga fi ñaanal sa soxla moo tax jaam bi ci lay ñaan soxlaam ci aaya yi nga xam ne moom moo topp ci uh, iyaaka naabudu wa iyaaka nastain mbokk yi kon ki tënk saar wi uh, jël nañ ko ba juróomeelu aaya buñ ñëwaatee incha allah yeggali yeneen aaya yi si kattanu borom bi subhaanahu wa taala yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp yàlla yàlla may ñu secret yi nekk ci fatiha yépp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu